salaamaaleykum sama mboq internet yi nga xam ne ñoom ñoo may seetaan Elvision Média nee naa la man maa ngi nii man xale bu capable xale xale bu sañ bi xale borom jiit bi maa ngi nii di fitte tamit ànd ak mbégte ak kontaan tey nag boo leen ma gisee kii taxaw sama wet muy Diack Star dama koy daal di jox kàddu gi rek mu daal di nuyoo Diack nuyu naa la. waaw si sa ñu ngi lay nuyu di euh, nuyu bi. Mhm. nuyu sénégalais yi. nuyu département bi nuyu national. di nuyu communauté sénégalaise surtout nag la communauté xadria mhm. waa ko Cheikh Seck Sarr doom Cheikh Mouhamed Fata ma leen di delloo njukkal di leen sargalaat di nuyu tamit sama waa commune jàmmaloon si Gàmbaaw euh, di sant ak ngërëm bi ma waa El Média nga xamante ne ñoom ñooy samay partenaire mhm. dañoo euh, yàgg naa ak ñoom mhm. euh, te kër gi da sama kër la dama dëgg la dafa leer dafa leer nam ma sama kër <laughs> tey laa na moom jàkkaarloo si la puissance day neex tey. la plus belle. Mm, wax ko ca kaw. awa ah, wax ko ca kaw. ay waay dégg li <laughs> dégg li uh, bëgg jëkkëram. Mhm. tey ma ñëw fii uh, rafetlu sama émission bi nga xamante ne dama ko war a ñëw rek def ko uh, ci sam-sam bi nga xamante ni. fii la ndoxum Zamzam bi tuuroo. waaw gis nga waaw kon loolu la. waaw Diack nag fa laa war a dugg ak moom Diack Estar dangaa nekk euh, Samsam 3 dëkk fi yàgg fi loolu nekk star jaar fu ne dem fu ne def lu ne ci ci ci ci aar bi Diack euh, hmm, tey avant may dugg yow sax pourquoi star bi star bi pour lan tamit. non xam nga Estar bi. Mhm. forcé wu ma ko. Mhm. Euh, tey man bi may nekk tout temps. Mhm. Star ma forcé. Mhm. ndax man man euh, xam nga booy dox man su may dox sax. Mhm. xëy na léegi la bi may jëm euh, xaw a nekk vétéran tuuti ni ñu koy mhm. waxee. mais ay jamono euh, banlieue Pikine fi nga xamante ni fa la wulee ñaar. bu may dox oto yi dañuy taxaw di ko di ma xool. c'est parce que looloo tax ñu dama jàkk star c'est parce que man su may nelaw sax ba ma bettee yeewa sax star ngay gis ay ay ay ay dëggal li jàkk ngay préparé rëy ngai perpalu lu peta ngai perpalu kan dek wasam sam tua wadakar mondo anche ñepp ko xalaat rek ñu ngi naan bisu jaag ba jak lan ngai wajal fof non beseti mhm. ndax eh, bu ma juddoo ba tay damay def bes mhm. ana kay eh, eh, labali fas taxula fasarab mhm. fasa nga ca kanam tay nañu wax ci bes bi buñ jógee jall ci lenen wa mais dama xana dégg damay manam defati bes xam nga ku war ñay ba wàcc ko loo war a ci ay ree lay def nii mhm. mais nag dafa dama jublu ci événement bu mag mooy que ni grand bubu de laay def waaw parce que xamul tax euh, jàggu artiste rek mhm. dama nekk artiste musicien nekk danseur professionnel dafa mhm. nekk promoteur de spectacle maanaam ba dañ ma doon wax daan l'homme des grands événements Euh, ma jub bis nag muy ma ci fête sama maanaam suma anniversaire. Mhm. mais li tax ma créer initiative bi moy dama ci sargal kilifa ku mag. muy préfet muy euh, monsieur Souleymane Ly. Mhm. Euh, le sous-préfet de l'arrondissement Thiaroye. Mhm. mu doon événement bi nga xamanteni ni bi bi bi bi jàmmagal soso bi mu jàmmagal soso ba fi muy tëjee événement gën gu rëy te mosu fee am bu mel nii. waja jaag dama lay laaj tout rek lan moo tax nga wolu sa bop ci lolu jaag dañu gis da nga yag def ay événement macha allah ñi naan dina réussir ñi naan du réussir ndax fi lañ ko fekk fi lañ koy bay ñuy gis sa sa sa say programme da fay fess jaag mu bari jaag bu wona nga wax ma tout rek ñoo ñoo nekk sa ginaaw ñoo ñoo lay jàppale. waaw ñu ne sama ginaaw ku nek sa ginaaw mhm. nga nambe nga gañe te fo jëm am ndam. Mhm. wa ahlul bayti rasul. waa ko sax Masak do na soxna ñu Binta Mohamed. doomu Cheikh Mohamed Fadal. Mhm. Eh, bàyyi Cheikh Talib Guèye. Mhm. maami Alwalid Maane Ndiaye. Mhm. sëriñ allah ñoo nekk naa moom événement bi. événement bi pour man. non weesu naa ko maa ngi koy wax beneen bii teew tomb naa ko. yàgg ma gis la ba mooy booy def programme dangay dangay dangay maanaam ñi nga xam ne ay ministre lañ ñi nga xam ne maanaam ay borom doole lañ daal ci ci ci nguur gi. jaag ñoom ñoo ñëw sa bés ñëw wuyu la nag ba keroog muy tas ñu daal dem jaag ban relation nga am ak ñooñu ndax affaire bi dafa doy waar ndax waa sam-sam 3 ñu ngi koy waxtaanee. waaw xam nga lu tax nit day mën nit day mën nitam. Mhm. man mhm. ndax euh, man damay jàpp nit avant événement damay téye nit après événement. Mhm. maanaam man sama nitu démb yi ba tey man ak ñoom a nekk. en commençant par sama nitu démb yi ñi nga xamante ñi mujj tey ñoo leen ci fekk si. bu ci kanamee daa xus ci yi. mais da nga ma laaj loo xam ne daf ma ñor. parce que tey du ma ni tey maag el parti de booy seet tey El Vision Média. El Hadj Lo. loolu euh, ndaam si rek directeur général. Euh, el mhm. euh, mhm. maanaam ku ñëw da nga fi fekk. Mhm. te ku demee da nga fi bàyyi. loolu dafa leer li ñu boole dafa rëy. maanaam dañoo dem ba biir mbokku feeñ. ma tamit moom noonu koo xamante ni ba ñuy ànd dañu ànd ci benn ci benn. Mhm. mu doon nit ku gore. Mhm. man noonu laa téye El Hadj ba tax mhm. na tey euh, fët fët tàggalewul mbaam ak i noppam. Euh, bëre tàggalewul ngemb ak mbër. ndax ngemb mënta dem bàyyi mbër. mbër mënta dem bàyyi ngemb. déggal yi olof tamit que puissance dégg na ko. Euh, mooy que ni puissance mënta dem. Uh-huh. bàyyi ko puus mooy El Hadj Lo. Uh-huh. tax samay nitu samay

ak tey Mbaara Gueye moom ku ci mel ni tey suma yaay xarit ba nga xamante ni mhm. mooy suma yaay père mhm. Diogu Niang mhm. ba ci Ablaye Timbo euh, les grands autorités yi nga xamante ni tey ñoom Mbaara Gueye créole xam ay Amadou Diarra maire xam nga ay Moussa ay ñoom euh, Ibra Gueye Lance ba pare ci ci côté ci côté euh, ministériel bi nga xamante ne mooy côté nguur gi dama proche ak ñoom ba ci sama frère Mamadou Cissé moom nga xamante ne la Pikine président bi mhm. kilifa yu mag yoo xamante ni maa ngi séq ñoom ba ci diaspora bi mhm. ay Seynabou Diop nga xamante ne tey vraiment maa ngi koy remercier le passage tey moom moo war a yóbbu tey ci année 2019 bi moo war a dem à l'extérieur ma koy ah ah yaay mu ngi koy nuyu yaay Mouhamed euh, Diagne chéri Papi Diagne kon yow Diack doguma la kon yow Diack yaa ngay xaas lay jox xaas ku lay jël ba jël la yóbbu Europe tam xaas bi leen nëbb nga sa bopp euh, solo mooy xaalis du nekk ci poos am nit. non jaag nañu waxante dëgg rek te yàlla tax ñu jàll ci leneen. jaag ñi ngay ànd ay autoritaire lañ comme ni nga ko waxee léegi du ñàkk ñu ngi yëkkati dara xaas bi takku ñu lay jox. bi may ñëw ci El ci El ku ñuy wax euh, Pape Fall. Mhm. moo euh, mhm. mhm. ngi muy DJ Paco. kon bu ñu paree foofu nañ nañ. mooy vraiment ma koy gërëm le mhm. passage mhm. di gërëm tamit Aïcha Djigo borom mhm. Napoli waaw ñooñu ñu ngi ak ñoom Fallou Gueye borom Torino borom ñoom ñëpp ngi ak jaag sama relation ak euh, noonu la demee ak sama relation ak artistes yi noonu ma demee ci politiciens yi noonu laa demee ci ma tuuti rek ma daal di ñëw ak yow ne nee naa tey man maa la invité invité woo ma maa yow tey daal dara du yom ndax du ma la may dara may ma rek ma daal di ñëw ndagam nañ ci loolu dañuy daal di dem ci li nga xam ne moo nekk artistes yi euh, comme li nga wax léegi maanaam ban ban ban ban nga am ak ñoom Eh, ndax yéen a ngi ànd yaa ngi dem di leen seeti comme ay ñoom Seydou Diop xam comme ay Baba Diallo comme artiste bi nekk fii tey comme keneen ak keneen keneen keneen bëgg naa nga ñëw ak man tuuti daal ah eh, ñoom waali artiste yaa ngi fi daal ndax dañuy demalante di dëkkalante ban kii nga am ak ñoom daal. waaw man ak artiste yi damay mujjee ci commune bi. Mhm. Eh, ndax ci ñi ci biti à travers dans le monde. Mhm. man dama na artiste àdduna bi yëpp dama am ñoom jàmm.

melni papa ndiaye ciw ku ci melni tay jiri ku ci melni tay boy tia sek ku ci tay euh euh ndey gey doguma la doguma la doguma la may ma foofu tuuti eh, jaag yow fecc kat woon da nga don fecc pire deg na loolu mako for diak da nga don fecc pourquoi diak nga baye fecc bi fecc bi fecc bi lan la lutax manam dang ci amul li nga bëggul wala wala wala da ngaa mënatul. da nga fecc xale yi ba tey maa leen mën ci condition. bu ñu paree fecc zëzal. non bu ñu boole maa leen mën maa leen mën ci condition. <laughs> ba tey xale yi maa leen mën ci technique. ba tey xale yi seen xalifa général la ba tax. ñoom ñoom Ameth Thiou ñi nga man maa leen jàngal fecc Ameth Thiou bu coon bu waali. sama rakk la ma koy nuyu la passage. Ameth Thiou ak a baax nuyu booy bay groupe Thiat. Fallou Galas di nuyu booy Omor. damay dégg di nuyu booy Galaye. di nuyu vraiment ñooñu nga xamante ne tey dañ daan toog di ma yëndu jamono yooyu man maa ngi war su may frère ñoom Modou Fall ñoom Boy mm-hmm. boobu maanaam damaa bokkoon ci troisième mm-hmm. mais maanaam boobu damaa demoon ba ci yàgg ma off fecc mi ndax di def promoteur de spectacle di mm-hmm. organiser ay événement yu mag tey vidéo sama loxo tey Soweto tey Best Burger tey Davison Line tey Ravin vraiment ci organiser événement yu mag bon di fa jaar ak ay artistes yu mag ay ñoom Demba Dia xam nga Euh, ñoom Papa Ndiaye ama jamono yooyu man su ma organisé woon artistes duñ génn. Mhm. man maa daan organisé teg chaise basse te ci ñoom ñi ngi may seetal après dañ ko déglu ñoom Moussa Demba ñoom Fodé Diop Matar maanaam créé événement pour dëkk bi mën a yëngu diggante Gounass ak Pikine ak Baxdaad. déggal li ba pare Jack euh, dama seetlu ne euh, pourquoi nga choisir Samson 3 dama gis looy def rek da naan yow da fi euh, danga nga fier nga xam ne mooy commune bi nga dëkk mu jàmm gën si Kambaaw lépp looy def wala lépp avant ngay def dara ci àll bi danga naan danga koy defee fii ba pare. xam nga déggal loolu. bu ma defee trente ans ci carrière juddoo mm-hmm. juy ga màggee mm-hmm. ñetti baar mm-hmm. def sant yàlla ak méngoo def kita euh, caaray kaw def baxdaat ak gunaas dugg waagi daan dugg waali daan da ngay nuyu sama maman Sufi Ndiaye ministère de euh, conseil sama yaay Sufi Ndiaye si soxo di nuyu ñeeño yi sama copain bijoutier yi nga xamante ne tey fu ma yegg ñoom la waa télé mag yi réduit si ñoom alaaj Thiam borom Marok. ñoom Boy Diagne borom Alex borom Paris. Mhm. amee dégg euh, dafa am foo xamante ni buñ fa tolloo rek dañuy def dëgg. Mhm. Euh, mooy li ma laaj léegi te siwaat fa. Mhm. muy maanaam daal li nga xam ne maanaam jéggaani woo daal sam-sam trois fii. fii laa ñëw tàkkee fi. man du ma jëlee lenn sam-sam. dëgg la dafa leer te juddoo ma fi yaroo ma fi màggee ma waaye sam-sam laa tàkkee ndax nag sam dañu am kóllëre sam dañu am jom dañu am fulla dañu am fit dañu am ngor. Euh, ndaxte li tax damaa gëm ni waa ahlu bayti rasul boo leen bëggee. Mhm. ba dëkk foo xamante ni ndoxum zam-zam ma fa tuuroo. muy sam-sam. Mhm. Mhm. bon maanaam fi laa njëkk a defee sama premier single. muy Jakarta. nga defee ko ci studio Tafa Sow suma rak Malick Ndiaye ànd ceeg Ifra moo ci ko nekk suma manager ñu ànd liggéey single boobu. ma ñëwaat defaat fi deuxième single waaye Alassane Mbaye le griot des VIP. Euh, ñuy dawaat ma delluwaat benn euh, année dem ginnaaw raay def benn single waaye ci Arsane Mbaye mm-hmm. waaye ci euh, directeur général RTS Racine Talla mm-hmm. bi ma demee ba ci yàgg ma am fu ma jaay ñoom Lamine Samba xam nga wër Sénégal diaspora bi yëngal ba ci yàgg mu del siwaat ndax ba sama awa fi la dëkk mm-hmm. waaw dafa leer aw dul këram mu tudd kaay jàpp ci way ci ay si jugóob torodo bi bi ma del sam-sam euh, am na ñoo xamante ne dañ doon wax naan du fi yàgg ñi naan bu nuyoo buñ ko fay ñi naan tey xam nga rek xam nga ndeysaan foo ne ñii dañuy bëgg di bañ. dëgg la ndeysaan man kenn bañul mhm. ma noonu fii. Mhm. man sam-sam un ba deux ba trois aw ma fi noonu parce que tey dama am yaay fii xarit ba mooy suma yaay honorable député borom le 8 mars njoogu ñaa mooy suma mhm. a sama bi nga xamante ne tey maa ngi remercier président ASC Thierno Seydou Diallo di remercier sama équipe bon vraiment tay fi la amé li ma am. deug la Diack manam buñu ñu ci la deug la <laughs> manam buñ ko naree waxtaanee lépp fii la ñuy fanaan benn kàddu rek la euh, dug ak yow buñ paré paree daal di xool lu def ba tagato suñu émission rek ba benen yoon Diack pourquoi nga génn euh, polyvalent ba né dang koy def daaj fang wa xam nga tax euh, xajatuma foofu. déggal li man xajatuma centre polyvalent man dafa am fo xamanteni

événement boo xamante ni tey mën nañu tey cinq arrondissement yëpp tey dañ fiy teew. muy mhm. cinq maires yi Abdou mhm. Karim Sall. ba pare ñëw cacher ma li nga xamante ni mhm. mooy visuel ma samay sponsor mu dugg ci à travers les sociétés des zones francs ma ànd ceeg suma premier partenaire muy Fallou Gueye borom PDG Mouvement 3D borom Italie borom Torino programme bi kan kan nga ci woo maanaam ci artiste artiste laa la wax kan kan nga woo ci artiste yi programme bi maa ngi invité suma nawle yëpp Mm-hmm. diaspora bi mm-hmm. ndaxte nag yëfi maire mm-hmm. yëfi yëfi commune de Diamaguène Sicap Mbao la concert la son et lumière ma ciy fête suma anniversaire bi nga ne ni tey mooy suma carrière yi nga xamante ni tey moom laa njëkk def ci musique no novembre booy seet sama sama sama date la mais maa ngi woo suma nawle ku ci mel ni tey ñoom Demba Gisee ku ci mel ni tey ñoom Yves Nion ku ci mel ni tey ñoom euh, Dame Sène di woo tamit ku ci mel ni Ndeye Guèye ku ci mel ni tey mami soppe borom Genève yaay bébé Aliou moom mooy mm-hmm. mami cosmétique moom ci partenaire la bokk. Mm-hmm. bon maa ngi woo tamit artistes yi nga xamante ne tey ñu ci biti ñoom booy Gaspar yi parce que tey dama lay wax loo xamante ni mm-hmm. dugg bi bu ko fekkiwul. waaw jaag waaw jaag nooy duggee ñam ma si tuuti rek maa ngi yow wax ñam ma si tuuti rek ndax am na lu ma dégg nee nag am na looy duggee. non ni noonu may duggee nag non buñ ko xamuta jaag bàyyi ma ñamal ko yii ñi rek wuy ma non loolu kenn su ko duggee fii. ci non Diack bàyyi ma ñëwal ko mbokkut. bi commune bi sosoo ba tey non ni ma nar a duggee fii bu ma ko fi duggee fa lay yem. nettali doo bàyyi ma nettali tuuti rek. non bu nettali bu nettali ba pare loo ci xamul nag damaa woo sama nawle yi maa ngi woo Assane Diop di woo Filim Sarr. Fallou Jifa. Mhm. Khadim Samb Fallou Dijé Fallou Samba Diakhaté yéeli vraiment di woo ñëpp di woo tamit suma frère suma xarit Baba Diallo. ndeysaan waaw suma suma suma suma nit parce que tey. Euh, commune bi dama bëgg ñu ñu ñu am lu ñu yee lu ma leen wax. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, baaba suma xarit la. nit ku baax a nga noonu. Euh, te suma suma suma nit la. Mm-hmm. dafa am lu ñu dund. fii boole wuñu. baaba dama dama ko da fekk na ma ba jas ndax man maa moom jas aéroport jas ndax bañ koy ubbi fa la ma fekk bañ may jox ay terrain bi ngi taxaw. deuxième solution bi mooy dafa am lu ñu dund Pikine mhm. ndax dama ko fa jox ay événement ñu ko fay jël baaba sama xarit la suma lépp la pour nit ñi bàyyi ñu jaay nga nga nga may ma foofu tuuti ndax bëggoon naa dugg ak yow foot mais temps bi moo ñu ko mayul mais damay euh, dama bëgg ñu kii tuuti rek jaag euh, dama bëgg a xam yaag Baba Diallo lan mooy seen problème comme lu ñu ñi di wax may ma tuuti rek ma daal di ñoom comme non Baba mais kii may ma tuuti rek comme lu ñu ñu ñi di wax la sànq wax naa la ko say biir wax mais da nga bëlëf da nga bëlëfal wax ji daal di may réeral mais du ma ko nangu non may ma tuuti rek jaag may ma tuuti rek may ma tuuti lan mooy sa problème ak ki nga xam ne mooy Baba Diallo ndax sànq laaj naa la léegi yéen ñaar seen diggante la moo ci nekk yaag yaag yaag Babou Diallo ban problème nga am ndax fu mu nekk nii xale yi ñoo ngi koy raxasee ndab dëgg neexul mag ñaa ngi koy sabee gaa yaa ngi koy grand placé gaa yaa ngi koy naanee ataay di ko waxtaane jaag wax ma dëgg lan mooy problème yaag baaba Diallo moom nga xam ne yéen a bokk commune bi. puissance day te duñu mës am problème. pour mu leer ci Sénégalais yi. leer ci commune bi. leer ci autorités yi. leer ci artistes yi. leer ci autorité yi. leer ci fans yi leer ci soppe yi. Baba Diallo suma frère la. Baba suma xarit la. Baba suma nit la. avant may am jabar sam-sam. ba définir maa maa Baba ñu doon dund. ma koy woo ko jox ay événement ma koy tëgg. ñu doon daje sama kër benn jigéen Aïcha Diouf borom Torino. borom Napoli fa leen doon daje sama jigéen boobu ne njëkkoon a nekk ci jigéenam nag boobu mi ngi ànd ak magay ma jox ko foofu ñu may woo ñu xam tey koo dem bañ lay woo xew nga naan leen dem leen jigi daaw jaar ñu koy fay cachet muy ñëw ma dem ba jas xam jas mën jas mën a organiser événement ñëw fay jox ko cachet même bu doon tane cachet dërëm sax. noo jaag ba tey waxoo ma luy problème bi de. non non non jaag dama bëgg nga wax ma luy problème bi rek. ndax lépp lu baax baax jaar ngeen fa seen diggante yéen ñaar loolu waa Sénégal yëpp xam nañ ko dama bëgg nga wax ma luy problème bi yéen ñaar jàmm am na wala jàmm amul point. ñu daal tëj suñu émission. moo tax ma dama bëgg a leeral nit ñi li tax. xam nga des fois. gars yi fans yi dañuy bu buñ leen buñ buñ déglu ñun dama ko dama dama koy tëj pour ñu bañ a parce que ñun artistes yi la jaag ba tey yaa ngi may jaay xelu mag de non yaa ngi may jaay xelu mag jaag dama ne ne maanaam sekk ngeen li nga xam ne lu baax la seen diggante képp kuy gor sekk na ko moroomu goram mais dama laa laaj nga wax ma jàmm wala du jàmm instant bii nii loolu rek laa a xam. ah ah damay laaj ci rek Baba Diallo sama frère la. Mhm. boo sequñu dara. loolu dafa leer. Euh, maanaam mën na wax benn affaire li ma seqal moom sax ci problème mu mbalagante. Mhm. maanaam mën naa ne euh, am na yoo xamante ne egguma fa ak ñoom ci artiste yi ko njëkk yoo ne ñoom laa njëkk xam waaye man dégg naa gisuma hmm. dégg naa ñu ne da ngeen man de yéen ñaar doolu nuyante non barki Cheikh Nassir Sall waaye jaag tàggool tàggool ah, foofu non jaag tàggool sama nit la mhm. nit ñee xamul ndeysaan mais bu ñu tasoon pour te dire ma wax la benn affaire. Mhm. nit ñi ñoo réere mbir mii ñu artiste yi réerante woon mbir dafa ah, ñoo tax mhm. ñoom fa ñu toog mhm. naan di wa xew ak di wa xew ñun bu guddi jotee ñu ngi ci boîte yi bu whatsapp jotee ñu ngi whatsappante bu ñu gisee jotee gis ñu ngi sax parce que ñoom ñoo fay des ñoom ñoo fa jaay paañ pour ma wax la benn affaire ñoom ñoo am problème mais ñun du ñu mës am problème parce que tey bu dee façon ñoo fay daje ree jaata noo fay daje baaw man dafa war a taxaw di way ma di ko feccal en tant que danseur. waaw loolu dafa leer benn mhm. damaa war a def single wala may way baaba ñëw di ma këral en tant que waykat mhm, mhm. damaa war a def album ànd ceeg moom en tant que waykat ak lii damaa war a def événement mu ñëw yéegandoog ma defandoo comme ni ko Feeling Sarr ak ñëpp nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des frères max la benn affaire Assane Dioboo Baba Diallo Diago ñun ñoo moom commune bi ñun seen whatsapp yu bari yeeg seen groupe yi ñuy def nii nañ fi nañ noonu xoolal nañ ñoom ñooy nekk nii rek mais nga tey ji mu ñu jotee maa nga frontière wala baaba ñëw jekkafe wala ñu nekkante esma wala ñu ne ci studio yi nañu réglé ñun jote wuñu te mënuñ ñoo xës maanaam daal maanaam maa sax dem nañ ba xam parce que xam nga mais fans yi ñoom pour ma wax benn affaire nangoo maa may wax de maam lañ leen de ñun xam nañ fans de yàgg maanaam daal yow da dem di naani ataaya da ngay dem di naani ataaya baaba naan si ataaya ma wax la benn affaire mm, mm. ci média laay waxee. non man damaa sob nag xam nga xale bi xam damaa sob damaa bëgg mu leer. nga xamante ni man xoolal bëri gi démb ñun ñëpp ngeen ak seen Diop lañ demoon. Mhm. neer benn. Mhm. Baba Diallo. Mhm. wallaahi wal azim te lu bees ngi ñoo xam ne li bees taax mooy lan. jaag day def single te da ciy invité Baba Diallo. Eh, eh, déggal yi Baba. parce que xam nga Baba ne dog ko baal nit mbokam dafa leer ma bëgg Sénégalais yi du yow waxuma ci commune bi rek. mais dama bëgg ñoom ñëpp ñu xam ne ñun ñun ñun la. Mhm. ndax ñun ay référence lañ ay porteur de voix lañ. Mhm. ñun ay star lañ ñun ñoo moom musique bi ñun ñoo ko téye. Mhm. yaa may la si def mooy la mu saf ko ko météo xam. te Zeyna. xam nga àdduna yàggul. ndeysaan na mu solo. Baaro sama nit la. Assane Diop sama nit la. Félix Sarr euh, Diop kii Samba Diakhaté Waly 2. papa ñun ñëpp xam nga. ñun ñëpp yéen a bokk fii xëccewuñu commune bi man dama nag dama dama dama bëgg a yee musiciens yi pour ñu xam benn affaire fii yóbbuwuñu fenn. Mhm. dañ fay ne pour dundal gox bi mais li ñu war a yóbbu fenn xam nga fan la. Mhm. à travers l' international dañu war a mel ni xool fi Pape Diouf xool. Mhm. ñu xool fi Waly xool. xool fi Thiar Seck xool. loolu mooy point bi mais pas ñu ñëw fii jël suñu bopp jël lépp def ko ci commune bi. commune bi bu élection passée ñu ngi ci li ñu nekk. promoteur yaa ngi hélas do mi ci li mu ne puissance ngi ci li mu ne mhm. ñun nañu ne ci li ñu ne jéem liggéey mhm. defar suñu commune bu baaba xewee ñu àndandoo booloo xàccandoo dóorandoo bu keneen xewlee ñu xàccandoo dóorandoo ñoo moomante suñu bopp te désormais sax léegi xoolal pour te dire même ñi fi ne nga xamante ne tey ñoom naa ay côté management nag yooyu mhm. gis nga manager yi ñuy manager bu guddi jotee kenn ku ne da nga dem tëddi ñu artiste yi ñun la kon baaba joteewu ma ak moom dara te amee lu ma ko benn àq su <laughs> waaw waaw waaw waaw bëgg naa loolu tamit ah. naa amul solo nee naa ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nee naa la comme ni ñu koy waxee rek mënuñu ko fee bañ ndax noonu comprimé la saa yoo xëy na see war a jël ñaar bu leen nangu dara féewale leen yéen ñi nga xam ne yéenay artistes yi euh, di nuyu waale sama artiste boobu ah, Feeling saar euh, waa di ko nuyu waale bu baax a baax fani uh-huh. di fani temps yi passé nga xam ne defoon na fi soirée bu spécial soirée bu neex waa di nuyu Assane Diop doom doomu Diop Massi bu baax boobu. waaw dëgg la. Euh, ku sant nit doo sant yàlla. Mhm. may sant ñi nga xamante ñoo may dooleel. di ma jàppale. Mhm. parce que lu la am na ko gën a may coy. suma yaay bu baax a baax bay joor. Mhm. di remercier waa Kër Cheikh na Cheikh Sadd. nga xamante ni tey ku ma rek ñoom yëg ko. may remercier suma frère. Mor mhm. Cissé bi nga xamante ne mooy album bi. Mhm. album bi dina génn ren incha allah 2019 jàkk album bu bees tax. ñu mhm. ngi tudd actualité la album bi tudd. actualité la album bi tudd. Euh, ak Mor Cissé suma frère ànd ceeg suma partenaire suma xarit. muy Fallou Gueye borom maa ngi gërëm Mor Thiaw suma xarit maa ngi koy tàllal loxo ci album bi. ci tàllal loxo Baara Gueye Mor Thiaw mi nga xamante ne mës na sonn ci man borom Cambérène. saa su ni may jàppale. maa ngi koy tàllal loxo ci album bi nga xamante ne mi ngi tudd actualité war di ko taalal loxo maman euh, maman Matikan mm-hmm. taalal loxo tamit maman Sonko yaay Mouhamed mm-hmm. Seynabou Diop Ibise mm-hmm. taalal loxo Baara Gueye directeur général Clen Ewel di taalal loxo tamit Mbaye Boulangerie di gërëm tamit Abdou Ndiaye tissu gërëm tamit euh, Idi cosmétique saa su ne mi may dooleel moom tamit vraiment ñooñu nga xamante ne dañuy sonn ci man mbay Boulangerie di gërëm Mbaye Gaz maa bi ñëpp bañee dafa nangoon téye ma. ak a baax yaay sëriñ yaay bàyyi Cheikh Ibrahima Chérif Mbaye mm-hmm. Fall. Mm-hmm. nga xamante ni damaa bëgg moom dafa ma bëgg ba ndeysaan dangay waa di gërëm soxna di gërëm Moussa Malika. Mm-hmm. sama rakk. ok di gërëm ñoom Ami Diop vie déranger Xaalim Jong sama tailleur. maa ngi koy gërëm. yaa ngi bëgg a nekk mbër de. non non non yaa ngi bëgg a nekk mbër de. non du ma xool Xaalim Jong moom may wax wallaahi dinaa la yóbbu ci moom tey damaa bëgg moom Xaalim nga ñawal sister Zeyna. def ah <laughs> ak maa ngi. barki yéen sama yaram sama yaram a dégg. ndax yow yaay chéri Ndate. maa ngi nii da nga a lu baax. Mhm. ndax kii mooy siste Zeyna la puissance. Alim mhm. Jong Baye na ma defar robe rek yàlla baax na. defal ko robe Jong bu séer yow heure sa kër yaa ngi may teral Samba Dieng chéri eh, eh, Samba Dieng. jëm ay waay may ma <laughs> may ma tuuti rek ma daal ñëw macha lii laa leen indiloon